match euh, bii nga xam ni moom la Sénégal di football lanu leen bëgg a indil am njàngat ñu ngi ci buntu stade bi stade maître Abdoulaye Wade ngeen gis ko noonu image yu rafet dugg si gaynde yi ba nga xamee ñu ngi dugg ci biir ñax mi nga xam ni moo nekk ca stade maître Abdoulaye Wade di def seen échauffement échauffement yoo xam ni ña ngi ko defa moyens yi nga xam ni moom la ñu échauffé woo mu nekk moyen yoo xam ni rafet na taay ba jéggi na dayoo ñoom Habib Diallo ñoo nekk noonu Sadio Mané euh, jàkkaarloog yéen di def li nga xam ni moo nekk échauffement avant match échauffement boobu euh, bi ñu koy def booba stade Diamniadio bi nga xam ni daanaka desoon na ay quelques roq roq yooyu nga xam ne bu ñu ca génnee équipe bu RTS ñoom it pare nan bu ngeen gisee loolu mooy ñi nga xam ni ñoo war a tasaare euh, match bi ci àdduna warangal kàpp équipe boobu nga xam ne complet na ay gone yu am jom nekk ci kaw tirbine bi fu ci ne di doxal loo xam ne ci wàllu image wër na àdduna leer na nañ ànd ak professionnalisme boo xam ne gone RTS yi doxal na loolu ndaxte looluy dëgg ñoom ñooy ñi nga xam ni Afrique saw jant euh, bokk na ci ñi fi daq defar image yu baax te di ko produire te Sénégal la ne kon loolu ñun sénégalais yi lu mu métti métti waruñu koo fàtte. jàkkaarloo nag di filmer ñoom Sadio Mané ñuy def seeni échauffement échauffement yoo xam ni dinañ ci def presque une boo xam ni dañ leen koy jàngatal parce que boo xoolee loolee am na solo ci match yi nga xam ni moom la Sénégal di football di ko doxal ndax tàngatu boobu day tax bu ñu duggee ci biir la nga xam ni mooy terrain bi dañuy doxal pare nan équipe bi dugg na ci terrain bi Sadio Mané pour la première fois ci match bi mu yër kër gi tàllal loxo ya baaraamub dëba muy wane ni benn bii jot naa dugg te ki ko dugal mooy monsieur le capitaine capitaine bu ngeen ko déggee du brassard waaye capitaine day ne ci équipe tam ma ñaa bañ doon brassard mooy Sadio Mané moo tax mbaxana ma nga xam ne moom la ko douzième gaynde préparé mbaxana ma mucc na ayib doomu sénégalais bi mu ngi gën di dugg ci biir xolu ñi nga xam ne ñooy sénégalais yi di dëkkam di pays boo xam ni fi la juddoo màgge fi fekk fi baax di leen fi indil ay taraanga yoo xam ne mucc na ayib lool benn ñaar ñetteel ba mooy troisième bii ba nga xam ne dugal na ko yër kër gi su ngeen xoolee baaraam yi trois la ca def trois yooyu nga xam ne tax na moom doomu mbàmbale bi fii may wax ak yow ci histoire Sénégal ci dugal bii ka nga xam ne moo nekkoon Henri Camara sama waa ji bàyyi na ko ci ginnaaw ndax Henri mi ngi woon ci 31 bi Sadio ay yokk na ci benn nekk 32 wala boog leen na ko benn bii waaye loolee lu neex Henri Camara la ndax bari na kàddu yoo xam ne yëkki na ko wesaare ko ci réseaux sociaux yi di wane mbégteem boo xam ne am na ko ci doomu sénégalais bi nga xam ne defatina jaloore Henri sénégalais yëpp yow it di la jël jëlloo njukkal ci sa xol bu rafet te lay ñaanal quatre cent match yi nga xam ne moo ngi bëgg a yëkki Aliou Cissé may la te bu leen fàtte abonné ci youtube bi laa Malick TV bés cloche de notification yi lépp loo xam ne dugal nañ ko mu ni caw ci seen kanam